mbokk internet yi di si laaj bi ñu doon ati ñun ñi nga xamante ne moom mooy njëriñ seen mbokk yi. gannaaw bi Darou moom moo wax loolu. ñoom dégg nga.

ñun sax dañuy yegg dégg nga dégg nga waaye comme si waxtu bi toll dañuy dem biir suuf ngir yeneen xéewal yi ci war a topp lii dafa ko bëggoon a def rek saa boo ñi nga xamante ni ñoo ko boo defee li ci des nag dañuy bàyyi bu guddi

bu dee man dara bu ma leen fi gërëmee suñu borom da ngay xam ne parce que li saabu aca ñu jóg ñu jóg arrière nañ si te bu ma leen ko waxee nekk ngeen xam ne depuis 2008 fi góorgóorlu xam nga maat yéen xam ngeen lu ma leen waxoon xam ngeen ni 2008 ak léegi li ñu fi ak yaa gore. kii boobu ba léegi saa bu la beesoo yëpp. donc bu ma leen bu ma leen waxee ni leen bu dee bu ma leen gërëmee si biir baax ñoom leen da ngeen xam ne vraiment yéen a ngi moom. ndax bëgg na ko jaay baaxul ñëpp am yéene ma ñëw ku nekk ma ñëw fanaan waaye jamono ji moom fu toll il faut que ñu xoolee ci yàlla ni muy rafetal nit ñi gëm nañ Serigne Touba bëgg nañ ko boo xam ku amoon na leen gën a ñu ne gis ko sax kàtt mu di ko tàllal wax kese di ko nuyu vraiment euh, yoon bi yoon bi fii la war lu ngeen am sëriñ bi ngeen ko yéene te bu ngeen ko gisee fàtte ngeen seen bopp boobu laa am sama bopp ci bari boo way laaj jéem na ko leen ci bari koo xam ne bi bu ñu gisul kaw la bu ne xam ne ko amul bu la nangoo gis parce que day jàpp ne saa bu la gisee moom moo war a def nangoo yéen suñu diggante ak yéen waaye nag foofu dafa am lu ñu ko ci tuddee xel même xam seen ruuj yi ak seen xol yi ñu xas tee ba lool mënuñu leen a am pour nga ci